السلام ولا زوزني لو كل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 سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi ginnaaw bi nu musloo ci noon bu mag boobu la laanatullahi alayhi sant sunu borom subhaanahu wa taala mi nu ginn ci yoonu siraatal mustaqim di julli di sëlmal ci sangu mbindeef yi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen di nuyu nuyu ba gën a rafetali nuyu jullit te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen dokkeel bu baax te di leen balu xaq di leen bal àq bi ñu jógee ci bis bu mag boobule di Aïdul Adha di sant sunu borom subhaanahu wa taala mi ñu defal tawfiq ak taysiir bañ fekk war ko ci jàmm ak salaam. di leen nuyu te di leen sargal di leen wax ne dil siwaat nañ seen jataay bii de xam sa diine fii ci ëttu soxna yu baax yi ngeen ànd ci seen mbokku jullit seen mbokku taalibi sayida soxna jaarali ginnaaw bu ñu ànd ak ci jataay bii weesu ci li nga xamante ni nii ñu ngi nekkoon ak yéen ci li nga xam ne mooy xawaidul iman te mooy ponki ngëm yi ngi ci njëkk nekkoon si shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ñu nekk andon ci ak yeen teggon ci teggon ci li nga xamanteni ni modi di xawaa ci li nga xamanteni ni moy gem malaika yi waaye itam teggon ci li nga xamne modi gem <coughs> ci téere yi nga xamanteni ni mom la sunu borom subhanahu wa taala wacce lon yonenteem yi tay nak ñu fas and ak yéen ci iman ajmain te modi gem yenente yep yonent yi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moo leen yén yónni woon ci mbindeef yi ngir ñu teg leen ci yoonu siraatal mustaqim gindi leen ci yoonu siraatal mustaqim kon lan moo ñu war mooy ñu gëm leen ñoom ñëpp ci lu dul benn teqale gëm yonente yëpp li commencé ci Seydina Adam ba ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yonente yi nag seen lim sunu borom subhaanahu wa taala rek ko xam Cheikh Ahmad Bamba mi ñu koy junj ci téeréem yi dañoo xamal ne kat seen fukk ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom la ci ay junni waaye mu am ci ñaar fukk juróom yoo xamante ni ñoom kat ñoo gën a ràññeeku ñoo jullit bu ne war leen a xam ndox ñoom la alquranul karim tudd ndax lenn kat ci ñoom ci yonente yi am na ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala ay ambiyaa lañ waaye nekkuñu ay rusul mooy koo xam ne dañ ko jox dañoo dañ ko dañoo dugal ci moom ak nubbu wax waaye yónni wuñ ko ci aw xeet mu am ñoo xamante ni itam dañoo nekk ay ambiyaaw nekk ay rusul dañoo dañuy leen a solo ba pare yónni leen ci aw xeet ñi nga xamante ni nag ñoo gën a siw ci ñooñu mooy ñaar fukk juróom yi nga xam ne moom la alquraanul karim tudd te boo ñëwee ci sindiiri Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul radiyallahu anhu di ñaan ci seen barke te moy commencé ci adam ak nuh ak hud ak idris ak lut ak salih ak daoud ak yonent yàlla yusuf ak yunus ak ayyuba ak harun ak yahya ak yanquba ak ilyas ak ilyasa ak ibrahim ak ishaq ak ismaeil mi nga xamne lañ wax kalimullah ibrahim nek khalilullah zakariya Suleymaan ak Zulkifli ak Isa ak Shuaybu kon ñaar fukk ak juróom yi mooy ñi nga xam ne ñoo moom la alquranul karim indi mooy ñi nga xam ne ay ay moom dañoo dañ dañ leen a yónni dañoo nekk dañoo dañoo leen a solo ba pare yónni lañ ci aw ci ay xeet sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nag moo ci mujj mu nekk ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne moom la alquranul karim tudd moom la Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan ci seen barke ci sindiiri indi leen ñoom ñaar ko juróom yëpp kon jullit bi war na ci moom mu gëm yonente yooyu yëpp xam ne yàlla moo leen yónni waaye nag itam ñaar fukk juróom yooyu kat ñu génne ci juróom tuddee ko ulul azmi mina rusul ulul azmi maanaam ñu ëpp garaat ci yonente yi te moo di aadam ibrahim moussa isa seydna muhammad alayhim salaatu wasalaam kon juróom ñooy ñooy <coughs> am ñooy juróom ñooy ñooy mi azmi mina rusul waaye juróom ñooñu itam ñu tànnaat ci kenn mu gën ci muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon loolu mooy ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne moom la alquranul karim indi waaye ëpp nañu ñaar fukk ak juróom te it xeetu Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ci gën moom la yonent bi daal di wax kuntum xayra ummatin uxrijat li naas kon xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ci xeet yi waaye itam war na ci jullit bi kat mu gën leen ñoom ñépp yonent yi nag mu am loo xamante ne ni dafa war ci ñoom am loo xamante ne ni itam dafa jomb ci ñoom li nga xamante ne ni kat war ci yonent yi mooy dëggu dëggu ak kóolute ak jotal dëggu nag suñ ko waxee mooy lan dëggul ci ci li nga ci ni moom la yàlla moom la leen yàlla jox risaala bi nga xam ne moom la leen yàlla jox ngir ñu jottali ko ci xeet wi nga xamante ni moom lañ leen yónni ñu dëggu ci nga xamante ni du am luñ ci yokk du am luñ ci wàññi waaye di nekk loo xam ne dañ ciy dëggu nga xamante ni ni ab yonentu kon jomb naa wax la safaanoog dëgg waaye itam muy kóolite kóolite mooy lan li nga xamante ni ab yàlla araamal na ko wala sunu borom subhaanahu wa taala na ko ab yonent jomb na mu di ko def waaye itam jotal li nga xamante ni message bi leen yàlla jot jottaliloo ci xeet wi nga xamante ni moom la leen yónni ñu bañ cee wàññi dara mu matal ko ba mu mat sëkk waaye itam ñu bañ cee yokk dara waaye itam ñu bañ cee wàññi dara kon dëggu ak kóolite ak jotal ak alfataanatu mooy xel loolu lépp mu nekk mbir yoo xamante ne nii lu war la ci yonente yi waaye mu nekk itam loo xamante ne nii am na ñeenti mbir yi ñeenti melo yooyu nga xamante ne nii lu war la ci yonente yi am nañ ab safaan boo xamante ne nii jomb na ab yonente di ko mel safaan ba mooy lan alkasibu alxiyaanatu alkitmaanu alxaflatu te moo di alkazib mooy wax lu safaanoog dëgg yomb na ci ab yonente mu di ko def maanaam wala wax loo xamante ne nii dëppoowut ak la nga xamante ne nii moom la ko suñu borom subhanahu wa jox ngir mu jottali ko mbindeef yi wor itam nekk na loo xamante ne nii lu jomb la ci ak ci yonente yi ñu di ko def ñoom duñu wor te moo di ñàkk jotal li nga xamante ni moom la la suñu borom digal ngir ñu jottale ko kon amul lenn loo xamante ni dañ ci dañ koy nëbbu walla ñu ñu ci def ak njuuj njaaj wala ñu ci waruj nekk ab yonent itam du sàggan kon yii daal mooy yi nga xamante ne ñeent yi ñu njëkk lépp ab yonente dina ko melowoo waaye ñeent yi nga xam ne mooy safaan ba mooy contraire bi ab ab du ko melowoo kon ñeent yee lay melowoo moo di asiddiq al amaanatu at al fataanatu te comme niñ leen ko indilee noonu ci olofal bi yooyu la ab yonente di melowoo waaye yi nga xamante ni mooy contraire ba te moo di wax lu dul dëgg wala wor wala nëbbu wala sàggat loolu ab yonent du ko melowoo ba tey itam ab yonent yenn feebar yi du ko dal loo xamante ne ni feebar boo xam ne day tax nit ñi di la daw comme lu mel ni ay gaana wala ay siti wala feebar boo xam ne day tax pour la gis di la daw loolu ab ab ab du ko am feebar yooyu ab yonent du ko du ko am lo xamanteni ne da ngay mel ko xamne da nga gaana nit ñi di daw wala nga am ndoxi siti wala yenn febar yo xamne nit ñi duñ lañ lay ragal yooyu ab yonent du ko am way itam dagan na ci ab yonent mu denc soxna dagan na ci ab yonent itam muy jënd ka jaay ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da daan yor ay soxna yeneen yonent yi itam dañ doon yor ay soxna jënd ak jaay muy commerce yonent bi da ko doon def ah. di dox itam di jëm ci marché yi di lekk di naan loolu yépp yonent yi dañ koy def ba tey itam ab yonante yàgg naa feeñal ay mojizaat te mooy ay kéemtaan ndax ab yonent am yi dañ buñ leen daan yónni ci aw xeet aw woowu pour ñu gëm yonent dañ leen daan defloo ay ay ay ay ay mojiza ay kéemaan ngir ñu mën leen a gëm te kat di nga ci gis yonente boo xamante ni def kéemtaan kat te lu tax xeet wa gëm ko ndax yonente yàlla Isaa fekk na ab bàmmeel koo xam ne faatu na bu yàgg mu woo borom bàmmeel ba bàmmeel ba daal di dekk ci kàttanu sunu borom bismillah ah daan la fekk koo xamante ne nii day gumba mu raay ko daal di xool mu bëri ay kéemtaan yoo xam ne mu yent yàlla isa daan na ko def ba ci yonente bi alei salaatu wasalaam muy muhammadu rasulillahi moom itam ah, aw nitam daan nañ ko def lu ay kéemtaan ndax fekk nañ aw mbëtt mu faatu ba wow ñu ne ko boo bëggee ñu gëm la ndax ñuy du dangay dekkal mbëtt mi mu dekkal ko ñu xarloo ko weer wi mu xar ko te yooyu yëpp taxul ñu gëm ko loolu lépp nag seeni xar baax la yoo xamante ne nii sunu borom subhanahu wa la moo ci kàttanul sunu borom subhanahu wa taala ci ndigal suñu borom subhanahu wa la lañ koy defee ba sëy naa Moussa bañ ko yónnee ci Firawna Firawna ne ko yow bërki démb rek lañ la yar fii ah nga tey ñëw nga taxaw ne ab yonente la bala ñu lay gëm il faut nga indi kéemtaan yooyu tax yoo xam ne mooy tax ñu gëm la fekk am na bant boo xamante nii moom la ko suñu borom subhanahu wa taala joxoon pour bu buñ ko laajee bu ko firaw na laajee ay kéemtaan mu indi ci ay kéemtaan mu daal di sànni yet wa yet wa daal di nekk jaan wutali firaw na firaw na daal di daw mu jàppaat yet wa yet wa daal di nekkaat mu jàpp jaan bi jaan bi daal di dellu nekkaat bant dugal loxoom ci poosam génn ko mu mel ni dugalaat loxoom ci ci ci ci poosam mu nekkaat loxo te yooyu yëpp taxul woon Firawna gëm ko kon daal ñii mooy yonente yi nga xamante ni moom la yàlla yónni ngir ñu xeetal ngir ñu jàll le message suñu borom subhanahu wa taala teg nit ñi ci yoonu siraatal mustaqim waaye itam gindi leen jottali leen ci bu wér li nga xam ne moom la leen yàlla digal ñaar fukk juróom ñii nag moo ci moom la alquranul karim indi mooy ñi nga xam ne ay wu lañ waaye ay rusul lañ itam dañ leen a solo ba pare yónni leen boo ko tag ña nga xamante ne nii ay ambiyaawu kese leen waaye yónni wuñ leen ci wenn xeet kon ñaar fukk ak juróom yii rek la alquranul karim tudd jullit bu ne war koo xam war koo ràññee ñu leen tàggatoo ak yéen fii ci beneen jote ak beneen waxtaan ak beneen arkaanul imaan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 تي في اتو